alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu alxalifa Cheikh Mahi Ibrahim Niass di nuyu al imaamul akbar Cheikh Ahmad Tijaani Ali Cissé Euh, di nuyu naatiqul rasmi Cheikh Mahamadul Mahi Ali Cissé di ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel mboolem soppe yi tamit si bis bu mag gi nga xam ne bis ak imaam Xasan Cissé radiallahu anhu la mi nga xam ne jëmmi yermaane la woon te jëmmi njëriñ la woon ñeel mboolem mbindeef yàlla yi ndax ki nga xam ne ba muy judd 1945 fekk na fi boobu guerre guerre mondiale mu ngi am waaye ba mu juddoo 1945 ci la guerre mondiale boobu taxaw xam ne ca guerre googu sax boo fàttalikoo bàyyi mu ngi waajoon tukki ba Sukayri dem taxaw si xabru Cheikhu Tiyaan mu dégg ay waari di ko wax ko yaa xaamila sirri yow lahu fa yaxmilu maa xumilta min ahadin axir qudumaka xatta tanjali xumamun ndax mu ngi dem ci xabru Cheikhu Tiyaan dégg Cheikhu di wax yow mi nga xam ne yaayeenu sama mboot teeloo ko na nga tardeel sa tukki mi bañ génn si xat ni yi nii 1945 googu nag si la imaam juddu si la 4 décembre muy bisi tay bii ndax bàyyi dafay wax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu bis boobu la génn àddina waaye wiraasatu googu it imaam doon na ko si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax imaam it bis bu mu juddu rek bis boobu moom si la génn àddina ndax mu ngi juddu àllarba ci guddi Seydou Ali moo ko wax nee na waqat walida li mawludun yowmul arbia min saati ashira min tasia wal ishrin min zil hijja loolu Seydi Ali moo ko wax mu ngi juddu àllarba ci guddi ci vingt neuf zul hijja waaye bis boobu mu juddu it bis boobu si la génn àddina waaye bis bi mu génn àddina it bàyyi dafay wax mu ne ñun bis yonent bi sallallahu alayhi bis bu mu juddu la ñuy màggal waaye bis bi mu génn àddina dañ koy fàtte ndax naqar moom kenn du ko fàttaliku waaye bis bi nga xam ne si la juddu ñëw nekk mbégte ndax yaafaati du wutoon ne dafa tëb rek am doom doom bu masaan am tey dellu waaye ba imaam ñëwee nag si la toog moo tax nag ba mu juddoo Seydi Ali dafa jàng fukki fatiha ngir ñaanal ko yàlla ngir sante ko yàlla ngir ne yàlla may na ko doom joo xam ne bu bokk si baay do bokk si maam Alaaji mu ne baay moo ko tudd waaye ba ko baay di tudd it ko tuddee fii Kawlax mu ne ngir fàttali baayam ak sëtti yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy xasan ndax xasan moomu moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne moo mooy sayyidu shababi ahlil janna képp kuy dugg aljanna rek nekk waxambaane rek sayyidna al xasan mii sëtti yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku mooy sa sang waaye ci baay tamit loolu yàlla waraan nañu ko fii it ci imaam ndax tey sang la fii te sang la it ba penc bi yàlla ndax tey mooy royukaay jamono ji ñin gisuñ baay waaye lépp lu ñu daan dégg si bàyyi rek gis nañ ko si moom bu fekkee ne bàyyi daan na tukki di dugal nit ñi si diina ji loolu gis nañ ko si imaam te bàyyi ku daan sonn la ngir jaami yàlla yëpp eh, nekk ci jàmm imaam it ci loolu rek it la nekkoon ndax da ngay gis ne xay bu mës a am ci àddina rek dana fexe nu xay bi fayee loolu mooy jëmmi yarmaane dëgg-dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla wax na ko si alquran ne ko yónniwu ma la lu mooy nga nekk yarmaane ñeel mindeef yëpp te yonentu bam ñëwee ngir ñëpp nekk ci jàmm looloo ko taxoon na ñëw fexe ba ñëpp gore looloo ko taxoon na ñëw imaam it moom itteem mooy jàmm yàlla yëpp gore itteem mooy jàmm yàlla yëpp it nekk ci jàmm itteem mooy jaam yàlla yëpp it bëggante ndax boo seetee Nigéria sax ba nga xamee ne eh, ñi ngi diggante jullit ñi ak chrétien yi eh, da jullit ñi daan nañ lakk église yi chrétien yi chrétien yi di lakk jumaa yi jullit ñi président bi wax si ba sonn sottiwul waaye ba imaam demee ba waxee rek ñoom ñëpp dañoo dellu ci waat ñoom ñëpp bàyyi ci lañ nekk moom nag lu baax la def ba ni mu uy jee boroomam ndax kër gi ku nekk xam na ko si ba muy dund bis bu set rek da ngay yaakaar ne xew moo fi am bis bu set rek ndax bis bu set nit ñaa ngi ñëw te bis bu set nit ñaa ngi ñëw di wax seen soxla yi te ku ñëwit dana la fajal sa soxla te alalam du ko daan boole kenn ndax man damay wax ne xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom yi yëpp imaam jëfee na ko ndax yonent bi dafay wax mu ne ittaqil maharima takun abada nnaas warda bi ma qasama allahu laka takun agna nnaas wa ahsin ila jaarika takun muminan wa ahibba linnaasi ma tuhibba li nafsik takun musliman wala tuksiru daxi fa inna kasratu daxi tumitu qalban mu ne na ngeen teet li leen yàlla xaraamal imaam ku teetoon li ko yàlla xaraamal la imaam du lekk mukk loo xam ne lu xaraam la laa damay dégg si imaam Cheikh mu ne ba ko gars yi laajee mu ne danaa cité lenn rek ngir ne moom lépp lu mu daan lekk rek ku daan lekk lu ko leew la mu ne ndax toog nañ Nigéria benn waaye ñëw indil ko xaalis bu bëri mu ne ba guddi jotee rek imaam oo ko ne ko waa ji gannaaw ñëw na jox alalam ji ñu nit nañ toog ci sajaada ñu tee suñ kurus ñaanal ko yàlla. ndax xam nga bàyyi dafay wax ne bu la nit joxee ba xamatoo loo koy sante boo ko jàngee fatiha boo ko jàngalee fatiha salaatul fatiha boobaa moom moo lay desel waaye yow deselatoo kon nag ku daan lekk lu ko leew la ba pare teg si it ku gërëmoon tamit li ko yàlla joxoon la ndax gërëm li la yàlla jox mooy yow li nga amee nga pare pour di ko joxe te li nit ñi am amoo si soxla moom li ko yàlla joxoon moom gërëm na ko ndax fii amul ku mës am soxla rek lu mooy sa xel mi imaam rek lay daj ndax xam nga imaam Cheikh mu ngi nettali mu ne mës naa toog si lëndam ba euh, Seydi Ali yi génnee àddina am kuy wax ne waa doomi Serigne Aliou ji moom nu mu fi toogee beneen jigéen bi ne ko ah mu ngi joxe de mu ne ko doo ma présenté ma si moom mu jox ma mu ne ko kooku jarul saa nga ñi lay présenté booy dem rek mu jox la te imaam noonu la fi nekkee woon te ku daan faj soxlaay jaam yàlla boo nekkee si njàqare boo ñëwee mu faj sa soxla ndax damay wax ne lépp lu baax lu ñuy defal nit rek imaam defal na ko mboolem jaam yàlla yi ndax nit dana bëgg takk jabar amul lum takkee boo ñëwee si moom mu takkal na ndax jamonoom képp kuy takk rek nga gis ne alalam dana ci dugg képp ku xewle it alalam dana ci dugg ndax nettali nañ ne benn waay ñëw na ngir bëgg soxna amul lu mu ko takkee ñi laaj ko cent cinquante mille mu ñëw fii ci imaam wax ko ñu ne imaam yëkkati deux cent mille jox mu ne ko cent cinquante mille lañ ma laaj mu ne ko cinquante mille bi gannaaw boo takkee pay la nga ca war a def ñu ne benn waay jugee na Tamba ñëw imaam yëkkati euh, yëkkati cent mille jox ko waa ji mu ne man bu ma juddee sama ndey ak sama baay ba léegi dix mille ma moomal sama bopp man aw ma ko kii di ma jox cent mille xanaa wérul fekk wér na loolu yëpp jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentu daf daan joxe te ragalul ñàkk ndax ñu ne màng ñëw na yonentu jël benn waay yëkkati téeméeri gëlëm jox ko mu ne ko baaxuloo defaloo ma lu baax mu joxaat ko waa ji baamu loolu ba muy jur yonentu bu jañu duggoon dolli téeméeri gëlëm ba mu mat juróomi téeméeri gëlëm mu koy naan ko maa ngi seede ne di joxe te ragaloo ñàkk loolu ku loolu kooku yonantu yonantu dëgg la waaye imaam it ah, daf daan joxe te ragalul ñàkk waaye lu tax tamit du ragal ñàkk googu ndax xam nga damay gis benn kiyam bi mu bind mu ne fa albasani rasul sallallahu alayhi wa mu ne fa qaala lii sa takkuuna ganiyan saaxibul maal mooy dafa gis yonantu solol ko mbaxana ne ko da nga nekk ku omal mu ne danga nekk di borom alal imaam it alalam googu yàlla joxoon ko ku si gërëmoon yàlla la te wax naa la ba tey wa ahsin ila jaarika takun muminan imaam ku daan rafetal diggante moom mbooleem dëkkandooram yi la mbooleem ñu nekk fii ni yëpp tey xam nañ loolu muy képp koo fi laaj muy dëkkandoor boo mënti laaj rek imaam teral na la ndax xam nga yoon sa dëkkandoor boo ko tiimee sax booy togg dara bu xeeñee feer nga yëkkati dara jox ko waaye imaam yi dala daan jox loo xam ne moom li muy togg yow man ngaa togg loolu te fii ku fi mas a jaaxle dara wala nga soxla dara sa xel mi moom lay daj te boo demee si moom mu jox la xam nga dégg naa euh, euh, Pa Omar nga xam ne mooy papaay euh, Xasan mi ñu ne dafa toogoon amut ñu ne bàyyi na ko bis bu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëkkalee rek keroogee nga am waaye ñu xamee si ne it moom jikkoom mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam la te ku amoon ndigal la it yonent bi sallallahu alayhi te ku bëggaloon nit ñi it lim bëggal boppam la ndax lu tax moom lépp lu mu bëgg lim bëggal boppam rek bëggal na ko ñëpp ndax bëgg na ku nekk am ndax daf daa wax mu ne gor bu nekk war naa fexe ngir am nga xam ne dana gorel boppam ndax xam nga nit ki boo amul moom mu doo mën a goreel sa bopp ndax da bëgg ku nekk nga di ko ñaan te gor bu nekk mënul ko waaye nga gis ne ku bari woon suutura la si mbooleem mbindeef yàlla yëpp nga yonent bi sallallahu alayhi sa mbokk bu tooñee na nga ko wax dëgg waaye buñ ko tooñee it na nga ko buñ ko buñ ko tooñee na nga ko dimbale bu tooñee it na ko dimbale ñu ne ko ah, buñ ko tooñee xam na ni ñu koy dimbalee léegi bu tooñee li mu ne nga wax ko dëgg am na benn waaye du ma waxturam sëgg na fekk mu ngi amee cigarette si poosam sax mu wadd imaam jël ko nëbb ko si dara am bàyyi ba ñëpp dem ba ñëpp demee mu oo ko delloo ko ko ne ko gannaaw tey sa yi boo ko indi bu ko indeeti fii nga ah, xam ne comme Seydina Omar toog na benn bis benn waay ñëw ah yore sàngara Seydina Omar ne ko lan nga yore sa loxo mu ne ko meew te waa ji sàngara la amee mu ñaan yàlla mu ne yow yàlla boo ma suturaalee ba sàngara si nekk meew fii laay jaaree gëm yàlla dootuma ti sàngar mu def nii rek affaire bi nekk meew waa jooju keroog la tuub waaye nga xam ne kon imaamit dundam yëpp si loolu la nekkoon daf daan joxe te ragalul ñàkk ku bëggoon mbokk la ku bëggoon jaami yàlla yëpp la ku amoon teraanga la digganteem ak mbooleem jaam yàlla yi ku bëggoon ñëpp la te jikkoom mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi amoon digalil si yonent bi sallallahu alayhi ko dugal naa la loolu ah, te loolu yëpp it lu waral mooy ndigal li nga xam ne am na ko si maamam ndax démb maa ngi koy wax alfayda ma ne moom dafay nettali ne ba mokkalee alquran ñi mottali bàyyi def ne xale yëpp digal naa leen na ngeen tegal seen bopp waaye asan moom maa koy kaalal sama bopp maa ngene ngeneel ak yàlla loo xam ne yàlla ko jox ndax bu fekkee ne bàyyi ñëw na tamit fekkoon mission bi matut it imaam yóbbu na mission bàyyi bi foo xam ne bu bàyyi dundaatoon it dana si bég ngir li nga xam ne def na ko li Seydi Ali yi ñaanoon it ne yàlla na yàlla seddal suñ xol si moom te donnuloo ko barke Xasan mi nga xam ne mooy euh, papaay Seydi mi nga xam ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari yoon ca euh, fële ca euh, Joosong nga xam ne fa ko gisee woon ba tey ma nga foofu te kooku it borom barke la woon ku nekk xamoon na ko waaye it mu amoon kulure ak mamalaaji si maam mu ne bu ñëwaan si mamalaaji diit bi mu fii toog bisu sedd na jàng fanweeri junne salaatul fatiha addiyal ko mamalaaji waaye it ànd bi àndoo bu yàgg la tey nag bu imaam demee ba taxaw taxawaay bii si addina ba addina yëpp di ko bàyyi xel loolu munta ñàkk Samba Thiané mi nga xam ne moo jàngal eh, moo jàngal Seyda Ali alquran di eh, di maamam maam alaaji wax na ko ne ko àllaaxira bu ma amul lu may lu fees tenq lu ma ko bokk kenn lu may Samba Thiané tey nag loolu yàlla doxaat na loolu imaam mbiram tas na àddina lépp te lu baax rek ci la ko ñëpp xamee te liggéey na liggéey boo xam ne daj na fépp ah ñu ngi ñaan yàlla it mu taas ñu si barkeem barkeel suñu yëngatu barkeel suñuy daal ah te bëgg xiir ñu cëlam bëgg ak cëlam gërëm ah, te xiir ñu it yooni imaam Hassan Cissé radiallahu anhu amul sikki ne moom lépp lu mu bëggoon ci yàlla moom am na ko ñun lépp luñ ko defal it suñu bopp rek lañ koy defal ndax moom génnul àddina lu mooy jaam yàlla yëpp gërëm nañ ko génnul àddina lu mooy yàlla gërëm na ko waaye feeñu waaye yàlla si jaam yi rek moo lay wan di jaam bi mel ci yàlla ndax bàyyi dafay wax mu ne yonent bi sallallahu na nit ki bu ñëwee yowmal qiyaama nit ki bu ñëwee si jub jaam yi ñëpp naan la marhaban marhaban jubee jaam yi nag ñëpp di la musul it boo yàlla loolu rek nga fay fekk te ku amoon njëriñ la si jaam yàlla yi ndax yonent bi mu ne ki gën si mooy ku ëpp njëriñ ci jaam yàlla yi ñu ngi ñaan yàlla mu taas ñu si barke boobu yàlla dimbale ñu yàlla taxaw ñu yàlla wattuñ si lislaam wattuñ si gëm yàlla si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke Cheikh Tiyam barke Baye radiallahu anhu alhamdulilah allahumma salli ala sayyidina hmm. euh, gis nañ depuis ànd ak loolu yëpp nekk juddu Mawlana maanaam dundu Mawlana Cheikh Ibrahim. Hmm. lan sant yàlla la ndax xam nga li ma la wax léegi xam nga nit boo ko donnee rek da nga koy niru imaam bu ñu ne doon na bàyyi amul kenn koo xam ne dana sikki loolu ndax moom gis naa si bind bu mu bind mooy dafa wàcc Tunus am benn waay bu ñuy wax Mouhamad Jaloul waa ji ko gisee rek def na ko jëlal. mu ne ko la nga xam ne maa ngi gën ci yàlla ne mbir mi yow yaa imaam ne lan laay jël mu ne ko xilaafatu xam nga loolu ñu fàttaliku ne Cheikh Tidiane dajeeg naa kenn si xutbu yi wala dajeeg naa kenn si ñoom jamonoom Cheikh Tidiane mu ne ko loo bëgg Cheikh Tidiane xutbaane tulosment mu ne ko am nga lu ëpp loolu imaam nag bu fekkee loolu la moom doon na loolu at yonent bi sallallahu alayhi wasallam la dund te diggante baay ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam différence amut si baay mooy yonent bi sallallahu alayhi ndax li ma la wax léegi rek bu fekkee ne diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba jamono bii wala ba si jamono bàyyi kenn xamul ñaata at ñoo ci dund ñoo ca ñoo ca ñoo ca dox waaye jamono ju nekk rek ak ki nga xam ne kooku la yàlla di yebal mu yeesal diine ji lii sant yàlla rek ndax dund ati baay dund ati yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp benn la ndax ku mel ni Seydi liin balaa muy génn àddina dafa àndoon ak Pa Cheikh Sot dégg naa dem Kaolack bañ taxawee mu ne ko dund naa la ëpp suma ati baay suma baay cinquante neuf dund dund naa lu ëpp ëpp ati yontu yontu 63 ans mu ne ko fu nekk nii maa ngi taxaw si ati sëriñ bi waa ji naan ko mu ne ko loo bëgg ma génn ati sëriñ bi duma ko def mukk léegi nag moom 63 ans yu mu dund nit dund na téeméeri junnee at defu ko yontu yàlla noonu dund na junne at ñeent fukki góor ñeent fukki jigéen ñoo ko topp léegi na seetal imaam ñee la 2007 rek gars yi di wax ñu ne lu ëpp 5 millions taalibe am na ko Amérique kase Amérique julli l'islam mu ngi fa woon waaye tariqa tijaaniyya yàlla ak imaam tey ni mu ko defee Amérique noonu la ko defee si yeneen dëkk yi kon nag kooku dundam dund gu barke la léppam lu barke la waxam lu barke la jëfam lu barke la dundam yëpp macha allah loolu addina yëpp xam nañ ko te kenn weddiwu ko ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu alhamdulilah